jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su concept bu bees sëriñ bas bu bees jiili bu bees ci ndaanaan émission ndaanaan nag ndaanaan mooy émission boo xamante ni wasaare làmb moo leen koy dégtal mbokk yi képp ku am licence rek ndaanaan la ci làmb muy promoteur muy fans club muy amateur muy mbër ñoom ñëpp dañoo bokk ci biir ndaanaan yi tey ndaanaan bi seet si benn ndaanaan boo xamante ni doomu géejawaay la ñu koy wax mbaytin Tine fan yee bëri na ak Dame Sunger am ndam lu rëy ci stade Jom Iba Mar bokk na ci ñi nga xamante ni tëj nañ stade Iba Mar ak ndam tey ma seet ko ak wasaare làmb bëgg ñu waxtaan ci lépp luy jëmal làmb kanam Mbaye Tine maa lay nuyu. waa jili maa ngi lay fay ginnaaw ma sant yàlla jur maa ngi sant sama ñaari waajur. di sant borom saal bi nax sama xarit la sama doomu ndey la Baye di sant sama doomu ndey bébé sama xarit la sama doomu ndey la waaw di sant sama doomu ndey sa cameraman bi ku baax la ku ñàkk ñaan la sëñ Basiru sama xarit sama doomu ndey maa lay. siyaar bëgg-bëgg borom bëgg-bëgg taar bi maa lay siyaar tax lu bëri doole waaw maa ngi sant ñëpp nag di sant sama entraîneur Ron ndax day sonn su ñun. waaw di sant suñu grand Alioune Seye numéro 2 di ko ñaanal ci combat moo ñàkk jël yàlla may ndam waaw di sant nag sunu waa ñëpp di sant sama mag yëpp su ma amee combat may taxaw muy vieux sama mag bu góor bi ak Aïssa ak mama ak Mounas maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm waaw. lu tax Mbaye Tine 2 tur yëpp ne fi nga jël Mbaye Tine 2. man orka laa tuddoon orka bëri naa si cinq combats ba mu waree bëreeg am kayre si la kañ ne orga bi xam publicité la quoi da nga koy jënd sinon sinon doo bëre combat bi day te boobu maa ngi préparation ba combat bi de xam la instant boobu xam mënumaa yàq combat bi quoi te boobu mi ngi sonn si man si combat bi di xam nga di ma yóbbu si àll bi xam nga waaw di ma yee matinal ñu dem géej xam nga sonn si combat bi quoi ndax tey jii mbañ keere boobu la premier kombaam am ndax doomu mbër la instant may dégg ndax doomu mbër la quoi gars yi dar ko xam la mbaytin tamit ñëw jàppal ma si combat bi ma xam na kii kat sonn si combat bi xamaa waaw en même temps war naa koo mën a tuddee sama bopp loolu moo tax ma tuddee ko sama bopp loolu moo indil Mbaye Diène Junior bi waaw. mais loolu du dara ci làmb ndax làmb yaakaar naa ni ku mel ni Tigo mu ngi fi Elton ak yeneen ay BMW ay Samsung ñoo xamante ni tur boobu la ñu jël indi ko ci làmb pour man orca bi du doon loo xamante ni luy metti la ak Nokia. kon orca nekkul loo xamante ne tur buñ la war a mën a dindil la. ah kañ daal moo tax ma changé sama tur ndax keroog ba mu waree bëreeg mbañik waa ci laa changé tur bi a ah, man orca bëri naa ci quatre combats ci laa bëreeg Boy Dakar bëri seeg Garo Gar bëri seeg Sa Thiombe moo nekk sama quatrième combat. waaw changé tur mais boobu léegi mbéytin daal jigéen du ma quoi boobu léegi maa ngi ciy am ndam maa yàlla bu baax. waaw ndax Mbaye Tine moom grand bu ñàkk ñaan la quoi ku baax la moo ma ko ji quoi waaw moo ma ko ji quoi moo ma tuddee ko sama bopp. ñaata combat nga def arène. instant bii nii maa si 14 combats. 14 combats. barki alxuraanu karim maa si 14 combats billahi wallahi lamb xam rek lamb moo doy waar quoi lamb moo waxul dëgg rek jiili jiili billahi wallahi am naa 10 victoire. ñaata 10 victoire am naa ko ci lamb ji. 10 victoire 4 défaites. barki Seydina 4 défaites la am ci lamb wóosu jàmbaar Ramadan booy Dakar. alliance biram ak Paul bu Tivaouane Peulh. yow de ñi nga tudd fii ñëpp ay ndaanaan lañ. ñooñu ma daan ci làmb. billaahi wallaahi. ala daan kan premier combat maa daan Sa Thiombe. non maa daan Modou Nixon. daan Garo Gar. daan Sa Thiombe. daan Famara Thior. daan Ñanga. daan Ñanga ah. daan ah, waa daan Mbañi Kayre. c'est ah. daan Caatu Bambay. daan Balla Gaye junior kii Mbaye Balla daan Dame Suguer numéro 2 daan jool Jamono. non def nga euh, parcours bu bu garaaw quoi boo xamante ni mbër bu mbappatut wala dajut ci coono ci làmb yow demeewoo ak yeneen mbër yoo xamante ni dañu bëreet ñaari combat ñett am grand combat te loolu gis nañ ko fi ci làmb te ba léegi bëreegoo grand combat. te ba léegi nii bëreeguma grand combat. billaay ci manager yi la quoi manager ndax man ba ma daanee ñànga jour combat Boy Niang Garga Mbossé ci laa daan ñàng boobu maa bëri bi Boy Niang Garga Mbossé maa daan ñàng te ñàng ndaanaan la bërek ay Baye Ndiaga bërek ay champion yu bëri ci làmb ji te ba ba ma ko daanaan nu ko yàlla jëli daan ko waaw ci la bàyyi làmb ba léegi nii kon man man ay ndaanaan laa daan ci làmb am naa dix victoire moo tax instant bii nii man ku ma joxul grand combat ma jarul nga may woo ndax ndax dafa jot ma bëri grand combat. ndax am na boo yoo xamante ne nii BMW daaw ba may daan mbay Balla Gaye moo bëri deuxième combat bi deuxième combat moo ko bari boobu maa bari huitième combat bi xam nga mais promoteur yi xam nga day def lu neex te man booy kenn mooy supporter man damay jaay i daal mii sama combat ay bolok yu bari la ma jox lépp dama ko jaay vesal ko xaalisam barki alxuraanu karim man damay yóbbu teer man damaa bokk ci làmb billaay walaay booy yëpp damaa war a bëre ñoom booy yëpp damaa war a bëre ak ñoom maa leen gën a ñeme lu metti maa leen dàq barki Mouhamed waaw. keroog sa combat ak Dame Souguer wane na ko bi nga duggee ci stade bi keroog xam nañ ni Mbaye Tine 2 mi indi na mbooloo te mobiliser na te làmb loolu la laaj mobiliser wane jom wane fula yàlla may la ndam nga ñibbi. Mhm. waaw sama combat ak Dame Souguer moom dëgg yàlla maa mobiliser. idaali bolo bi ma joxoon lépp dama ko jaay. ba mu jógee si combat bi si guddi gi laa dem këram verse ko xaalisam. comme de léegi làmb ji mbooloo la maa ngi am 10 victoire ku ma ko waxul dox xam. te barke alxuraanu kër am naa 10 victoire ndaanaa ni nekk si làmb yëpp maa leen daan booy gën a dëgër ci làmb yi te man sama dalee bëre ba léegi jili mosuma bëre combat bu yomb barki yàlla mosuma bëre combat bokkuma ak booy yoo ba ma dalee bële beeg mosuma bëre combat bu yàgg billaay wallaay ay combat yu métti laay bëre man ay combat jànk laay waaw dama bëgg nag gars yi ñoo ñu bëree ponkal si kaw nongoloo ay tafa mbër jili barki Serigne Bamba nongolo nu ma jëlee jili nongolo su ma jëlee ma woyatloo ko maa ko bu doole maa gën a nekk si làmb maa gën a confiance si làmb su ma jëlee dama koy duma daan ko. nongolo mu gëraam bi di. yàdde numéro 2 nañu ñu bëre wala tafaa mbër man jili man fi ma soxlatuma yenn booy man gars yi am tur yi laa bëgg a jël waa ndax ma wane sam bopp ci làmb jili man damaa wane wane sam bopp ci làmb man damaa bokk ci làmb jili nee naa la damay dem ci àll bi di mbapat. ay Fimela Diofior Ndangaan Loulou Sessène Djilass fépp laay dem di mbapat barki alxuraanu karim ñi nga fi tudd ñëpp de xam naa ne nombre de victoire bi nga am amuñu ko muy ñett ñi nga fi tudd ñëpp euh, muy Tafa Mbër muy Ndongolo muy muy muy euh, nu mu tuddati Papa Yadda ñoom ñëpp nombre de victoire yi nga am amuñu ko ndax wax dëgg ku bëre 14 combats am 10 victoire 4 défaites kooku ku mu laaj ci làmb boo ko bañee rek da nga koo ragal. waaw maa ñoom dañoo war a bëre dañoo war a bëre ëpp ñu ma mbooloo ëpp ñu ma coow ci làmb ëpp ñu coow ci làmb maa keroog maa ngi dem estade gaa ma yàgg Arafas combat la mais Arafas su ma ko jëlee dama koy daan xam nga ñu ne waaw ñu ne xamoon nañ ko kon man combat jànk laa bëgg combat bu metti laa bëgg koo xamante ne nii dafa dëgër ndax daam sigar mii daanaan la ndax ba ma koy jël ñëpp ne waaw ku ma laaj ma mbër kaamil ngay bëreel doomu mbër la champion la Fourrière la mujjee bëreel te Fourrière fi mu ne grand combat la bëree moog Bébé Diène te daan kon man fi mu ne grand combat laa war a bëre waaw jot na quoi mu bëre grand combat waaw mais incha allah sama prochain combat mu jili bu yàlla defee jàmm rek grand combat laay bëre fii arène national duy ko ba mu fees waa jaay bolo yi bëri ndax damay jaral ko ndax waaw waaw ndax jili nga dafa jot quoi man ma grand combat xam nga waaw wane sama ci làmb dafa jot jili barki alxuraanu kam dafa jot. am ci combat yoo xamante ne wax dëgg waxtaan wax dëgg ca la xale bii di mbayti numéro 2 war na ko mën a bëre ndax Ada fas bu demee bay bëre bébé bismi grand combat stade Jom Iba Mar Diop kii keroog bi mu bëree moom diggante moom ak ki nga xamante ni mooy euh, nu mu tudd daam Sungeer da ngaa gis mbooloo mu ñu indi ci làmb ba pare mobiliser bëre ci spécial bi la bëre moo doxoon ci diggante Thiély ak Agogo tey am na sa combat bu may dégg ni promoteur mu ngi koy dox wala boog nga leeral ma ko sa diggante ak Ibou mécanicien. waaw waaw waaw combat boobu ñu ngi koy dox waaw combat bi ñu ngi koy dox presque léegi mu sotti promoteur woo na ma ma ne ko waaw. ndax ban la. promoteur waaw tur bi sax xaw ma ko woo na ma ko waa ne ma xam pare nga yàgg Ibou ma ne ko waa pare naa mu ne ma pare laay wut su ma dinaa la woo. waaw pour ñu bëree grand combat ma ak moom fii arène national Iba mécanicien waaw baax na ndax man fi mu ne làmb maa ngi ciy bëgg a yàgg quoi jot na ma mu bëri grand combat waaw nekkoon nag bu mu delloo avance na jël avance bi. Eh, Iba mécanicien est-ce que xam nga ni su ma jugee fii ci moom laa jëm. waaw garaawul wu ma boo demee ne ko mbéyti nee na. maa ngi lay may xool. dimbalu ma ngir yàlla bul delloo avance ñëwul ñu bëre ñëwul ñu bëre maa la bu coow ci làmb maa la victoire. Issa may dégg sama grand nga nag sama grand nga quoi waa xamante lañ bu baax mais làmb la ñëwul ñu bëre ma ak yow ñoo mën a mën a xaalis. doomu ginnaaw raay la de. waaw Iba mécanicien waaw man ginnaaw raay booy bu gën a dëgër ci ginnaaw raay moom man ñoom Iba mécanicien muy ñànga ñanaa la maa daan dama ko dóor ba mu wari ma soo ko daan barke Mouhamed jili billaay wala jili man daanaan laa man damay mbapat man chaque dimanche maa ngi adhéré songo mbaa terrain gaal gi di compétir waaw ah, man waaw man bokkuma mbër yi nga xam ne day toog fii di xaar bii de bokkoo ci moom ñëwoo de waaw bii ñëw bii ñëw ñëw naa seetaan yow mbëggante man la jiili damaa blessé sama tànk day métti ba mu jógee sama kaw maag dam si xaw ma sëfi la xaw ma ba léegi sama tànk bi gaañu ma ci mu jékki-jékki di métti waaye saa maa ngi ci xamal la jiil la moo doy war ko waaw moo tax ñu ne mbër avant kombaa da ngay defaru après combat da ngay defaru waaw di ko wax sama mbokku mbër yëpp mbër bu jëm combat boo bëree pare fi nga dem yëpp nanga fa demaa ndax làmb dafa doy waar waa yenn gàllankoor yi dal mbëri yëpp loolu moo leen dal loolu moo war a des fois nga gis mbër jékki-jékki feebar fekk jiili barki yàlla sa fi metti la ay liggéeyu yàgg sa yaram wër na alxuraanu karim bilaahi message la boo xamante ni képp kuy mbër lépp lu mën a def mbër avant combat làmb ji moo ko laaj mais bu làmb ji weesoo ñu dem dindi ko def ko ci ni ko waree. def ko ni ñu war ndax ba ma jógee sama combat bi sama tànk bi gaañu ma ci bu jékki def benn boule tey laa commencé entraîné tey tey laa dem diine di kocc koccal wër na alxuraanu karim mais maa sant yàlla bu baax jili jili maa ngi suñu waa Ikiri waa Ikiri waalo Alioune Seye numéro 2 grand bu ñàkk ñaar la day sonn si ñun. ku baax Alioune Seye maa ngi koy nuyu. ñoom Maguette Seck Rhone. Zil doomu mama bi. la déggee numéro 2 ak gaayam combat Ikiri waalo di nga départ si Alioune Seye numéro 2 yàlla may ko ndam Mathia Perera yàlla may ko ndam caat bu waalo yàlla may ko ndam. majji majji sama doomu nday yàlla may ko ndam boy pir yàlla may ko ndam gars yi am si combat si équipe yëpp yàlla may leen ndam ñemagul komba yàlla may leen ndam waaw di sant sama doomu ndey na jiil wax naa la ko ndax ci day son si man su ma amee combat su ma amul combat maa ngi ñooy ànd guddi ak bëccëg. Elton le grand champion. bébé Elton fu ma dem. ñooy ànd su may dem ci àll bi muy waaw fu mu mënte dem ñooy ànd mbër la ko waa champion la. di ko ñaanal moo xam lu mu bëgg si carrière am yàlla na ko suñu borom defal barke Serigne baam sa lënkoo la parce que damay gis sa làmb yu bari day ñëw sa lépp lu la nar a dal mu dékku ko loolu ku rafet xol moo koy def làmbam bi weesu tamit gis naa la fa nga def loo xamante ni bi wul bi làmb ji wëree moom coow li bari nga ñëw xëcc ko yóbbu ko ci cimekaayam wan ni ko carrément da war a bëree waaye làmb ji du fi. dëgg la barke Serigne Bab dama toog si kaw ba zàgg mooy ba mu wëree ba yu bëreeg bébé làmbaay fekk boobu si a dem def jàkkaarloo man ak Dame Sugar làmb ji Sadio ma gis ko mu yëngal mais billaay ma jékki-jékki wàcc wàcc ànd ak moom ñuy ànd ak moom ñuy wër stade bi jékki-jékki dem supporter yëngal billahi wallahi ma ne ko booy amul leen looy tiit yow Baye Fall nga soxol dafa rafet bu soba suñu boom da ngay am ndam xam nga te yow yàlla soxol la lay fay da ngay am ndam bul am leen looy tiit man maa wax loolu te billahi wallahi ba mu bëree dafa duma gan gi daan ko. bébé Elton sa relation ak mbayti Tine numéro 2. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi maa ngi sant sama ñaari waajur di sant sama seex kii sama seex la barki sëriñ bàmba lu ma am ci làmb ak tur bu ma ci am yàlla ak moom la barki alxuraan di ko ñaanal fu mu bëgg yegg ci carrière am yàlla dimbali ko xamamu yegg fa di sant sama gaay waa koñ ba waa Gunaas aw ma seen fay. ñi nga xam ne waa Gunaas su jugee ñu topp sama ginnaaw maa moom ñoo bokk koñ waaye moom mooy sama mbër barki Serigne mooy sama idole mooy sama mbër billaahi li ne ci man moo ko def ci man barki Sëñ tubaab parce que moom dafa am jom xama am jom bañ ko ko yab barki yàlla donte xale la maa ko mag mais dafa am jom qualité yooyu laa moo tax ma téye ko quoi waaw di ko ñaanal rek fu mu bëgg a yegg ci làmb yàlla na ko suñu borom dimbali. Hmm. sa mag moo wax loolu ñaanal la ñaan boo xamante ne ñaanu xol la ginnaaw moo la mag sax waaye nangu na doon koo xamante ni yow yaay mbërëm bëgg na la jàppale encadré la ba fépp fu mbër di yegg ci làmb nga yegg fa lan nga mën a wax ci loolu. waaw moom dëgg yàlla moom yàgg na koo wax waa ku ko mënta laaj ak fu mënta dem barki alxuraan ku ko laaj danañ man li nekk si man yëpp mbaytin moo ko def si man kon man loolu noonu dama siy kontaan ndax moom sama grand la. yàlla moo ñu boole ñuy ànd ànd bu rafet jiilu ñooy ànd di liggéey maak moom Colobane Petersen fa la ñuy jaayee maak moom ñooy billaay ñooy bokk di lal di wanteer bu ñu amee combat na takk bagage yi ci ñëw entraîné bu sama ubbee xam la bu làmb ji xawee ki ñu dama dellu suñu waar xam la mais sama xarit la sama doomu ndeyal lépp lu ma dugg suba ba ngoon mi ngi ci te ndeysaan billaahi wallaahi waa gàllam dañ maa bëgg yëg ma billaahi gàllam laay defee lépp. barki alxuraanu karim waa gàllam dañ maa bëgg yéen ma di ma tiitaroo sama combat bi ñoom ñëpp a ñëw dem stade waa gàllam kenn desul bilaa wala jiile waaw. waaw Mbaye damay gis mbër ñu laaj ko des fois foo dëkk ku ci mel ni sëñ Bas nga xam ne doomu Jurbel la moom lépp fu mu am lépp lu mu am ci mbaax Jurbel la ko yóbbu yow doomu fan nga. man na sama cosaan Sangalkam la ne. Sangalkam <laughs> Sangalkam ko waa <laughs> sama cosaan Sangalkam la ne sama bàpp la dëkk. mais sama yaay moom tukulóor la waa sama yaay moom waaw moom moom fii la dëkk quoi waa Fuuta la mais moom tamit fii la juddoo fii la yoroo mais tukulóor la quoi sama yaay mais waaw sama papa moom bambara la waaw man man maanaam doomu bambara ak tukulóor la quoi waaw moo tax. loolu bu gàlle nga wala bu gàllewul. non tukulóor bu gàlle laa bambara bu gàlle laa tamit xam nga rek xam nga man fii laa judoo fii laa yoroo. doomu fenn waaw fii laa judoo fii laa yoroo géej waay fii waaw lépp lu moom géej waay la. waaw man moom lépp lu moom Guédiawaye di sant nag champion yi fu ne ñoom Balla Gaye numéro 2 ñoom Lac de numéro 2 ndax ñun waaw waaw ndax ñun lépp lu ñu xam si làmb ñoom la quoi ba ma nekkee booy bu ndaw di jàng école laa doon dem école Balla Gaye di ko seetaan. billaay wallaay Balla Gaye 2 dafa mën a bëre di ko seetaan chaque jour heure su ma wàccee cinq heures fa la may fekk barke alxuraanu karim Balla gay 2 moo tax ñu bëgg làmb ñun waaw man man nag. bu dëgg neexee Dalifor laa dem liggéey presque falaa jàngee bëre Dalifor ci di foofu fa laa jàngee bëre mais Ikri Ikri Oñez laa nekk nag jii lii. Rock Énergie jaar nga fa. alxuraan mi ngi nii laaj ko mi ngi nii falaa laa njëkk a nekk Modou Lo moom fa yóbbu woon. Modou Lo bu nekk garage. kooku gaañu Modou Lo la moo ñu booroon ma ak Modou xamale Modou Lo yëg mais sax yàgguma fa sax avant Modou Lo di bëreeg Balla laa fa jógee sama waa koñ ne ma non foofu xam nga làmb affaire koñ la ñibbi si géejawaay nga defi sa base xam la mais tey ji mënoo dëkk géejawaay di dem chaque jour ay parcelles. amoo dara lu la fa metti ba tax nga jóge non non dara dara metti ma ba Balla Gaye waree bëreeg Modou Lo seen premier combat 2010 xam nga xam nga coow lu bëri ko waa man ak sa benn gars ñoo fa nekkoon segg segg xam nga la coow lu bëri ko ma ne segg instant yi xam rek nañ dem. ñibbi ndax xam nga ne gars yi fii mooy loolu xaba ci lañ dem waaw ñëw aba ñu dem Ikri Mor Faram ma doon booy bu ndaw ne fa fekk fa ñoom Pambaay ñoom mbaytin ñoom Père Mao ñoom Ngéylu Mor Faram ndeysaan sama papa ju baax jooju bëggoon ma trop jiili pa boobu am si man confiance wóor na Serigne Touba heure su may contact ci man lay wax danaan booy bii nii booy bi mbër kaamee léegi day yàgg rek mais kii billaa wala nañ ko dégg ci làmb Mor Fadam sama papa la maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaari àjjana yàgg na ma ko wax billaay wallaay yàgg na ma ko man nag fa jàngee bëre écurie Mor Fadam dëgg yàlla lépp lu moom ci làmb ñoom la quoi sama premier combat fa ko sama premier combat fa laa ko bëree waaw ba sama dixième combat écurie Walo ñaari combat laa fa gu muy daaw ak ren écurie Walo daaw laa fa ñëw waaw si laa bëree mbay Balla Gaye daan ko bëree kii Dame Suguer daan ko waaw écurie Walo dëgg yàlla moom ay liggéeykat lañ quoi. ah. ci écurie Mor Fadam lan moo la fa jël. non dara dara jël man ma dem waa waaw man maa dem ba xam ne écurie bii kat arrangé tuma ko waa lan moo tax parce que boo xoolee dara arrangé wu ba nga jógee fa am na lu fa ñàkk a arrangé la la jógee jëlee Rock Énergie wax nga ko te xel nangu na ko diggante Balla Gaye ak Modou loola ñu am combat nga dëkk waaye doon doomi géejawaay ñu lay xoolee beneen xar kanam waral nga jógee Rock Énergie dem écurie mar fadam bi nga fa demee nekk fa ab diir jóge fa nekk écurie waalo laa la julee écurie mar fadam laa bëgg nga wax ma ko maa ngi yow ay wax. waaw waaw jiili loolu dëgg la. écurie mar sama combat mag alliance biram man si laa siisu quoi ndax te jii mënuma di préparer combat si écurie bi di na chaque jour demoon Gambie ñëw mais xam naa damaa yàgg Gambie quoi ndax combat yu Gambie laa ko préparer mu jóge Gambie ñëw dans trois semaines ma ñëw di contact gars yi na ma échanger xam la xam la xaba léegi ma jour combat bi ma dem ñàgg ñàgg sama kër yaay xaba dafa laa ngemboo quoi fekk fekk sama gaale fi xam nga rek mooy loolu léegi ma dem ñàgg ngemboo fa écurie bi amul amul benn mbër mu ñëw sama gaale mbaa benn paa waa coach boo xamante ne nii waa ñëw na ci làmb ji sam benn grand moo toog siège te loolu noonu ba léegi dafa maa met te man écurie moo faram amul benn boy boo xamante ne dafa maa dàq bëre barki alxuraanu karim booy nekk fa maa fa dàq bëre maa fa ëpp doole. ñëpp dañ koy wax waaw kon man waruma di bëree du ma gis benn entraîneur man loolu moo ma metti. sa combat boobu bi nga demee lu xew. combat damaa mujjee si man si man ak biram waaw combat boobu noonu xam nga rek damaa ñàkk. est xam nga ni c'est très normal nga ñàkk. ah ndax lan diili. Ah, kay parce que boo demee préparer ju làmb dem Gambie def fa ab diir ñëw fii ci écurie ba nga contact ñu ne li nga contact doyut. war ngaa mun a déglu conseil yi nga xamante ni moom la la say entraîneur di jox moom la la sa staff di jox war nga koo jël comme le leçon bi équipe bi di doxee waaye équipe bu ñu ne la waroo defee nii nga defee noonu nga dem am safaan wa kon équipe ba yaay nañ la keroog am nañ ndam sa kaw kon équipe ba keroog dañ laa bàyyi ngir nga demal sa bopp ba nga demee gis nga ne résultat ba nga fa doon wuti mu jéewoo ko am est-ce que du looloo tax équipe ba bàyyi la xam ne yow mii entraînement bi des na. waaye gëm-gëm ngay demee ak foot de jeunesse. non foofu non jiitu foofu damaa yaakaar ne jël la ñëw rek mais maa moom bëri nañ dix yoo xamante ne kenn daanu sa morom bañ ñëwaatee ni ma daanee man dama naan damaa war a daanu rek daanu mais barki rasulullahi combat boobu ba ma dalee bëre ba léegi combat boobu laa ci gën a liggéey jili ci ci teram ci laa ëpp doole dama jóge Gàmbi daj lu metti billahi wallahi entraîné entraîné jili ba bugga a dee trois séances laay entraîné Gàmbi damay xëy matinal dem géej ma ñëw dem saal ngoon gi ma dem foofu di ànd ak mbëru Gambien yi ay ñoom Kunta Junior di contact ak ñoom trois séances un mois barki yàlla ma ñëw fii xam rek ba ma ñëwee contact naa ci gir bi deux semaines laa fa contact am dara isa may dégg léegi troisième semaine bi na xamat xamal laa mu tamit ay maraada da cee bokk xam la léegi nag xam man moom ñaar ñoo jiital gàllaaj su doon instant kenn ki daa feebaroon quoi mënul def dara am la te kenn ki mënul dem fépp après man tam après mujj man maay obligé quoi waa di demal sam bopp loolu moo tax dernière semaine bi gars yi gisuñu ma xam nga gars yi loolu moo metti métti waa moo tax ñëw ñu ci combat bi mais damaa waroon daanu jiili nga mbër boo waree daanu dama lay wax secret boobu li nga làmb boo waree daanu maanaam bu la doon may ndam barki sëñ baam day mel yow da lay doo fa dem war a daanu rek jiri làmb kenn mënul kenn ku yàlla àndal a fi ne làmb kenn mënul kenn waaw ku yàlla àndal moo fi ne xolo Balla gay ak Modou Lo gay Gaye Eumeu Sène Eumeu Sène Modou Lo jiri làmb kenn mënul kenn mënul am nga am nga am ci làmb koo xamante ni boo ko gisee ci digg géew nga ni ah man de su sañoon ci làmb ni kii laay mel waaw am naa idole ci làmb ndax kooku day sonn suma muy Lac de Guiers numéro 2 Lac de numéro 2 sama waay la day sonn si man mu moo may fayal salle sama combat bu jotee ndax may jàppale quoi man kooku su ma sonn moom laay roy ci làmb mook Balla numéro 2. waaw ndax ay doomu géejawaay lañ man ñoom laa am Alioune numéro 2 man ñooñu laa am quoi man su ma sonn ñooñu noonu laay roy ci làmb bala Gaye numéro 2 surtout Balla Gaye numéro 2 ndax kooku sampion la jàmbaar la mbër kaamil la ngi noonu jiile. barki Serigne Bamba day ñëw wane jom te man loolu laa gëm làmb boo ñëwee wanal jom fulla ak fayda ndam nag yàlla moo ko yor mais su ma ñëwee ji leen damay wole fu na waa wana fayda te heure ba ma daree bële mus bëre bële musuma sumeeku si làmb sumeeku ñu ne ak cam kii liggéeyul sama combat yëpp jiili yow gis nga sama dañu sotti mën a daam si gër daam si gër moo ma sut mais bañ jàppantee barki Serigne Ba maa ko bu doole fukki yoon juróom jël na ma ma daw bal ko dëbb ko naax ma xam ne kii mais mbër la nag liggéey na si bi nag nag combat bi da koo jaral ndax ah, ko mu ñëw war a bëreeg man xam nga ko ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare doomu ndey commando la doomu ndey Ablaye Leye la moom la moo doon mbër moo xamante ni mbëru Petersen la képp koo xamante ni Colobane Petersen marché Dior ñëpp dañ koy jàppale moom xale bi nga xamante ni mooy Mbaye Tine numéro 2. wolof nag def ne doomu ñay kenn du ko ñaanal rëy danga koy ñaanal gudd fan ndax bu guddee fan rek rëy keroog seetaan nañ ko stade Diom Iba Mar Diop mu def loo xamante ne du bëre xale boo gisee ni muy doxalee nga xam ne yarul jëmmi xale macha allah ci bëre ba. ca xel mu dal ma ca confiance ba ca lépp nga xamante ni xale la boo xamante ni ku ko jàppale ci làmb mu dem kon yéen ñi nga xamante ni yéen ay promoteur bi combat am boobu xam ni maa ngi koy dégg mu ne ci kon ñu ngi leen di xaar incha allahu rabbi du yàgg tuuti mbëru commando bi dina tooyal xaftaanam xanaa ñu bàyyi la nga tàggatoo. waa jiile waa maa sant commando di sant Ablaye Lay di sant Moulay Lay na gars yi heure su ma combat dama ñëw petal seen ñu jënd ay billets di ma jàppale di ma ñaanal ko ñooñu mënu ma leen fay. di sànni sama doom nday sàll yow jili sa waa ko ñëpp samay xarit lañ barki yàlla ñëpp samay waay lañ maa ngi sànn na ñu may jàppale ki si mel ni maire bu Gunaas gannaaw bay di ba barki yàlla gannaaw bu ñàkk ñaala sama combat xaalis bëri la ma sant gannaaw bokkum waaw bu hôtel Salim kooku day sonn si man sama combat bi bologu bii la ma jëndal si combat bi maa ngay sant di ko gërëm di sant Serigne Ba di sant waa marché jili man sama combat waa marché ñoo may jàppale pétricelle magasin yi ay carte signé laay moom laay defar jox leen ko ñu jox ma jour su ma ñëwee ñoom ñëpp may jox ñi ay vingt mille ñi ay dix mille ñi ay cinq mille moo tax man jooyuma ay Malick Gakou man waa pétricelle ñoo may jàppale barke sëñ Ba di sant sama doomu ndey Serigne Ba Madiama Mbuub day sonn si man ak ñi nga xamante ne nii heure su ma amee combat du ñu nelaw di sant sama doomu ndey Bébé Saloum numéro 2 ak Bébé Elton ak sama benn gaan boo xamante ne heure su ma amee day jóge ba Louga muy abu ñoom armée sama booy ay ñoom Pape ñoo xamante ne nii su ma amee combat da leen jaral lu ne ak sama raq Aruna Aruna maa lay sant bu wér sama raq yëpp ñoom Abdou Karim ñoom Jabel booy heure su ma amee combat du am di sant sama waa koñ maa ngi sant ñoom As te jili sama waa koñ fa de ñu ngi waajal benn réunion bu mag boo xamante ne nii noo jili Iba mécanicien ne ko mu jël billaay wallaay bu jëlee avance promoteur moo ci dal rek bu ko neexee contrat bi nañ ci signé cinq bloc man maay man maay jaay lépp man fii laa koy waxee en direct. dina da ngaa bëgg a wax Ibou mécanicien bu jëlee sa avance nag bu jugee dakaar jëm Seras la jarta takkal pétaaw day dee. barki Serigne Mbamo day dee nag bu jëm Seras la yéex dee ñàkk yéex dee moom moo la gën a xam loolu doolee xale ak doolee mag bokkul Ibou mécanicien fu ma ko jàpp jëli la moom moo la gën a xam loolu. Iba mécanicien yow fu ma la jàpp jël la maag yow baat ak tontu la jëlal combat wu ñu bëre combat bi fi mu ne gaa ngi ciy dox di si di si commandé jëlal combat wu ñu bëre jël ko ñu bëre boo demee nee ko ba ci ne nga jël bi ñu bëre waaw na ñoo ma may ko sens ndax moom ndax moom gëj na bëre sax waaw mais garaawul quoi na ñoo ma may ñu bëre waaw jërëjëf jërëjëf mbokk yi nga xamante ne yéenay seetaan wasaare làmb rawatina ci émission bii di ndaanaan ñu leen di jaajëfal ba ëllëg incha allah ci beneen xew xew làmb jaa ngeen jëf.